mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy teg awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ni dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor a xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal. woote leen gaaw ci 77 169 13 13 77 169 13 13. kon nag nguur a kàttan mooy buuru produit kàttan yi.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 invité ku toll ñu ni Carlou ji nga xam ne xoola même bu dee tojul Sénégal sax ndax xam nga yéen Sénégal yéen ñiy toj Sénégal moom ay ramtam bitam la ñuy tëgg ñi ngeen yaakaar ne ñooy toj Sénégal ñooñu ay ramtam bitam la ñuy tëgg waaye yow kii nga xam ne dafa toj Europe partout dans le monde xam ko àddina yëpp xam ko Carlou ji woy fi woy yu rëy yu neex dégg nga nga invité ko no yéen a mën a déstabiliser nit te mën kaa nit day liggéey liggéeya liggéeya liggéey bay bëgg a dee benn bés ñëw xoola ngeen bëgg a taxañ la mu liggéey sànni ko ca mbalit ba fan ngeen ko teg yaa xayti mu laana du ngeen bàyyi di déstabiliser nit waaye Carlo ji ngeen fii fekk sama baay faal boobu Carlo Carlo nga xam ne personnalité ak dignité fulaak fayda Carlo nag moo par moo di ka làkk français yu set wecc xam nga woykat da ngay dégg tubaab te moom dafa dégg tubaab jàkkaarlo mot par mot parole par parole xoola di ko keccet di ko damat mu naan ka ndax di nga kañ ngay dellu siwaat nag mu nekko dellu siwaat du mën a am man dama bëgg artiste ngay xam sa bopp buñ la joxul sa gëdd sa àq sa yelleef nga jox ko sa bopp am personnalité dignité ndax Sénégal moom artiste moom boo fi nekkee artiste moom dañ lay neewal doole benn blobi bi ci artiste la ñuy jël xoola di leen yëkkati ñoo xam ne tojuñu fenn yow nga jël koo xamante ne ni àddina monde entier ñëpp dañ ko xam nga war koo yëkkati ba ca kaw xoola nga ne danga koy suufeel ku yàlla yëkkati danga kaa mën a suufeel Carlou D ak ndam li mu def ci senegal yëpp ngeen naan ay dafa fey ak kenn déggaku ta déggaku toog tant que bàyyiwu leen invité nit di ko moke ak di ko déstabiliser ci ay kanamu naw leen di ngeen yàgg a dégg Njaajaan Njaay li moom di ngeen ko yàgg a dégg Carlou G Baay Faal la te da koy doxe di ko waxee gis nga ñun ñii mu dëkk ak ñun somoon xam nañ ko bu baax am respect ci ñëpp respect réciproque la am fuuyul beewul réewul danga koy gis ni nga yaakaar ne xoola Carlou et eh, Carlou fii fuuyul beewul beewul réewul de te namul dara nag bokkul ci artistes yooyu nga xamante ne dañuy loué fii tey bu subaa ñu génnee leen ñu loué fale gannaaw suba ñu dàq leen ñu dem luwe ji feneen déedéet Carlou melul noonu de Carlou ji kilifa la kilifa ci boppam doon kilifa di ko wuyoo bàyyi leen di déstabiliser nit ak di ko wàññi nit dangay nekk senegal doon fi artiste nekk ndaanaan àddina mondo añcee xam na nga dem yéeg ci avion yi ba wàcc toj sa xutu xata gi ba mu ne ah nga ñëw ci journaliste yi ñu ñuy woowee ay journal xaw may journaliste ngeen xaw may animateur xaw may chroniqueuse dégg nga ñu nar a jël la nga liggéey yow taxañ ko ba mu jëkk rek dem di ko sànni ca mbalit fan ngeen ko teg yéen da ngeen moom nit ñi respecté leen nit ñi respecté leen artistes yi te jox leen seen cër yéen joxewu leen ay kub kuy soxla kub Europe ngay dem ñu jox la fa kub li gën a xoola li gën a sax ñaaw ci Sénégal duñ la jox kub nga dem jëli sa kub dem liggéeya liggéeya liggéey ba ña ca kaw reconnaître la jox la coupe nga indi coupe ba xoola ñu lay déstabiliser di la minimiser tant que bàyyiwu leen loolu ci Sénégal gi seen réew seen culture du dox du avancer du bouger centimètre du ko bouger dee leen nangul nit ñi nit bu mënee ne ko mën nga boo invité ak nit danga koy laaj ci ay projet ci lan lay dox ak projet yi nga xamante ne moom lay waajal muy ñëw waaye invité ni naan ko <laughs> waa taay moom géej dañ la dégg de yow moom tojatoo fenaa ah? waaw waaw fan ngay nekk fan nga nekk léegi ah di la wàññi di la minimiser waaye boo ko defee koo xamante ne dafa mën a tontu mot par mot benn par benn la lay tontu xoola Carlou dafa am staff am manager Carlou du artiste waye wayo yooyu de artiste waye wayo yooyu nga xam ne dañuy toog fee di naan ataaya ñu leen di apprécier naan leen wuy yéen fi nekk ataaya yi dugg na fi génn na fi di leen jay ba ñu jayaxu Carlou daa liggéey ba liggéey jotee mu prouvé ba prouvé jotee ngeen war jox gëddam ak àqam bàyyi leen di wàññi nit bàyyi leen di déstabiliser artistes yi artiste moom joxu leen ko gëdd Sénégal artiste xale mala ngeen gën a ñàkk a jox cëram te moom ngeen war a gën a respecté ndax artiste mooy kiy joxe ay message nga di ca jàngee keneen di ca jàngee yéen yaa xëcc mu laa tax respecté wu leen artistes yi bu ngeen invité artistes yi di di féewale di wut kumba am ndey kumba amul day naan kii wa fi toj ak kee toju fa bàyyi leen loolu nag 2STV du télé bu ndaw 2STV war naa am émission ba xam ne boo invité nit bu fay jóge di reetaan kontaan gërëm la sant la waaye nga invité nit mu jóge faa xol bu tàng loolu ban façon liggéey la changé leen seen liggéey nag te soppeeku seen jikko ñaaw na te bon de seen jikko ñaaw te bon ñun nag ku xamul Carlou ji ñun ñi dëkk ak moom nii somoon xam nañ leen seen liggéey nag te soppeeku seen jikko ñaaw na te bon de seen jikko ñaaw te bon ñun nag ku xamul Carlou D ñun ñi dëkk ak moom nii somoon xam nañu Carlou D Carlou c'est un grand monsieur uuf njabootam yor këram gu ne muut namul dara këram boo fa demee di nga xam ne kii dafa liggéey daa liggéey ba liggéey jotee ba tabax kër jotee mu tabax kër gu ne muut macha allah sama xaali xii na bàyyi leen gis nit jàppee ko waya waya Carlou du waya waya dafa liggéey ba liggéey jotee mu prouvé sénégalais yi am ngeen defate am melokaan respecté leen seen artistes yi bu ngeen leen joxul sax ay médailles wala ngeen tàppal leen ay médailles ak yooyu sax ngeen jox leen seen gëdd ak seen àq ak seen yelleef bi nga xamante ne moom la ñu yel waaye yow da ngay invité nit parce que nit ka fale la jógee rek yow yorul ay bongo di xandang-xandang gi rek nga di ko minimiser ak di ko déstabiliser fan ngeen ko teg te nit ñi di liggéey ba liggéey jotee yéen waa Europe naka lañu ñu mënee xam seen artistes yi génn leen a xam seen artistes yi yéen ñi nekk fii kon xam nga yéen fukki su leen sax ci seeni artistes fukki su leen sax pour xam ñi lan lañu liggéey ak lan lañu ñu liggéeyul bàyyi leen di wàññi nit Sénégal mun ngeen a tuutal nit mun kaa wàññi fii nag koo fi tuutal wala nga wàññi ko yàlla da koy yëkkati ba ca kaw da koy gën a yëkkati ba ca kaw xam nga da ngay def yenn saa yi nga jàpp yaa ngay yàqal nit fekk yaa ngi koy defaral lu rëy bàyyi leen seen jikko yooyu ñaaw na dingeen def karlo ji metti na ma ba sa kanamu yàlla ñaaw na te lii da ngeen koo yàgg def da ngeen koo yàgg a def ay artiste wàcc bàyyi leen dee leen yéen war ngeen a fekk sax koo xam ne kenn déggatu ko nga woo ko ba mu ñëw nga yëkkati ko ba ca kaw ba ña ko déggul woon sax jox ko importance bañ ko war a jox waaye seen artistes yi ku ngeen gëj a gis du ngeen ko laaj te ami collègue ngi ne feebar sax ci fu mu nekk tey bu Biram Jeng génnul woon wax li mu wax kenn du ko lijjanti fa la ñu koy bàyyi te li ma gën a metti ci Sénégal xam nga lan moo ma gën a metti ci Sénégal danga fiy nekk di di fi liggéey def fi jaroo jaloore ju rëy xam nga kañ lañ koy wax boo deewee ba ñu tegle si jàjj yi ku ne génn di paccal foroxal di jooy naan moom kay aka baaxoon ay waay liggéey bu baax bi mu fi liggéey moom kay nit ku baax la woon ah, ah Saint-Moussé Saint Grand Moussé way il a beaucoup travaillé au Sénégal yéen balaa ngeen di wax nit ku baax rek mu dee bañ teg ko ci jadd jaajde yi ah Carlou mii li fi liggéey yëpp xamu leen ko bàyyi leen seen jikko du ngeen gërëm nit te deewul du ngeen yërëm nit te ñàkkul ba torox du ngeen dimbali nit tànkam mi ngeeg ñaari tànkam am doole di def lu baax nay nay kof-kofi rek ngeen di ko yërëm Carlou nag mënu leen kaa tuutal de parce que tuutiwul yàlla tuutilu ko mënu leen koo tuutal nee naa la su ma jógee ci Carlou ji nag damay dem ci waajoo ñu nga xam ne temps yi ñu ngi naan jokkoor maajoor jokkoor leen am li li am joob indi njaay gis nga Waly Seck Waly sekk mooy koo xam ne ku mu defal lu baax nga fay ko lu bon dafa am nit ñoo xam ne yàlla moo leen moo ñaale lool du tee nag wax jeg lépp du tee ñuy def seen lu baax parce que ñoom loolu lañu xam Thiat Seck bu génnee wax ci Wally Seck lu mu mun di wax ci Wally Seck du tax Wally changé ndax Wally jikko bi muy am yàllaa ko ko moo ñaale mu nekk nit ku baax Wally bu fekkoon ay ñu koy ŋañ ak wax mu defal nit lu bon baax mu fey ko lu bon mooy tax mu arrêté kon arrêté na bu yàgg kon dootul mayati kenn ndax c'était pas la première fois ci Thiat Seck am na ñu muy defal lu baax ñoo xam ne sax dañuy gor ay tànkam ci suuf xanaa kon looloo gën a ñaaw mais Wally Seck mooy nit koo xam ne yàllaa ko fi wàccee nit boo ko xamul nag dee ko woowe ee eh, loolu du tax waali bon de loolu munta tax mariage sin may sa biige bon ndax boo baaxee baax nga ba noppi te man la may wax rek nee naa duma ma ne nit a baax ba ñu ne moo baax ma retourné naan dafa bon déedéet ci sama àddina man du ma dundee noonu sénégalais yi am ngeen defote am melokaan seen jikkoo ñaaw te bon respecté leen nit ñi respecté leen nit ñi encore une fois e eh, ale kama sa ala na xira atoy sa sabali ndeysaan mami Cobra ak maam Ndiaye Savon temps yi dañu nekk ci ay jafe ndax lan ay yaama nekk maane la demal dikkal ak dugal fii génnal fii mami Cobra yow laay waxal mami gis nga wax baaxul te gis nga nit boo meree da ngay toog nga dal boo dalee ne tekk tekk dalay woon yoon parce que di nga def loo xamante ne da koy def malgré que yow te après boo ko defee da ngay am regret ci sa àddina moo tax ñu ne la nit boo meree rek àndal ak sa sago rek ba sa mer giif rek looy def nga doog ko def ca ngay xamee la nga war a def ak la nga warta def maam Ndiaye Savon yow laay wax nit ku baax nga borom xol bu rafet nga yaag mami Cobra yéen a yem jikko seen jikko dafa rafet seen xol dara nekku ci ay nit ñu baax ngeen bëri ngeen xët-xët bëri tàngat tàngat bëri wax mais xol yu rafet yu nice ngeen am continuer leen nag lancé boobu nga xamante ne moom la leen sénégalais yi xamee ndax ay doomu nday ngeen ay xarit ngeen ku ci nekk présenté nga sa morom sa yaay ku ci nekk dem nga yendu sa kër morom kon dara waru fi ñaaw ci seen diggante yéen ñaar xoola trouver leen terrain d'entente ngeen toog waxtaan lépp daal di dellu siwaat àddina amul solo àddina amul solo te gis nga nit di nga wax nit loo xamante nga sa morom sa yaay ku ci nekk dem nga yendu sa kër morom kon dara waru fi ñaaw ci seen diggante yéen ñaar xoola trouver leen teere d'entente ngeen toog waxtaan lépp daal di dellu siwaat àddina amul solo àddina amul solo te gis nga nit di nga wax nit loo xamante ne nii pour ngeen delluwaat dafay metti ndax ku ci nekk boo delluwaatee sa morom yaa ngay sóoraale moo ba nga xamante ne moom la la waxoon du jug ci yow te loolu dafa ñaaw Sénégal nañuy rafetal fii lu ñaaw sax moo fi xejul Sénégal bàyyi leen di soxor ak di iñaan bàyyi leen nit am problème ngeen war a nekk di arrangé ngeen di ruutaale tamit bàyyi leen loolu baaxul ndax nit bu meree da nga koy giifal ne ko kii sa nitu démb la bu du bu dee benn fan seq ngeen ko ci lu rafet boo ko waxee loolu bu toogee ba dal rek xelam dellu si dina xam ne ah kiikat kat wax dëgg fa yàlla sama nit la maak moom seq nañu bu dee benn fan ci lu baax kon xaaral ma def ndànk waaye kërëb kërëb rabax rabax tell tell rajax rajax ña ca war a dugg dugg ca ñee ca warta dugg dugg ca affaire yi di gën a metti loolu baaxul te ku xam maam Ndiaye sabon wax dëgg fa yàlla nit ku baax la yow it Mamy Cobra yow nit ku baax nga fam battante nga góor nga garmi nga nit ku baax nga te lu baax rek ngay ngay ngay ngay def ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ba àddina yëpp wax ko bul yàq sa liggéey gis nga nit boo baaxee bul yàq sa jikko te bu ay nit tax nga yàq sa jikko defaraat leen toogaay yi Sénégal daal di dellu fa mu nekkoon bu njëkk ba neex journaliste yi yéen laay wax respecté leen nit ñi encore une fois boo invité nit po posé ko ay question ci ay projet waaye di ko déstabiliser naan kaan xeewi ngaak kenn déggatulaak yow foo nekk taayeeg tojatoo fenek yooyu ay moo la yoo xam ne day vexé nit bàyyi leen moo yooyu ngeen di utiliser di ko wax nit ñi gis nga sama vidéo nag xoola bere fag yaqayti mulaanaa waru ko woon a am ah ke